kon ni mu war a mel ustaz Mouhamad Kane muy kenn tamit ci njabootu xaaratul falaax Cheikh Mouhamad Kane ci école falaax yi la ba am fa bac yàlla baaxe ko mu ubbi ci jaaru al islamiyya bi Madinatul Munawwara nekkoon fa ci kulliyatu sharia ba am fa licence ba njël bi mu ngi yëngatu ci jàng ak jàngale ba léegi ak daawa incha allah ñu ñaan yàlla mu nangu ko nangu kon di leen leen bàyyi ak Oustaz Mouhamed mu dugg ci waxtaan bi incha allah incha allah salaamaaleykum الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب كالمولدنا ومسلم الله سبحانه وتعالى بجلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنعنا مومة وكرمة صحابان بنان الله سبحانه وتعالى مخير في بطنه te musal ñu ci seytaane ki pexeel kon ngeen ko déggee ci sunu ustaaz sunu Cheikh Diagne hafidahu llahu taala wa raa ci tomb bi lu gudd ànd fàttalante ko te ki toog di ci jéem a fàttalante ay mbokki jullitam moo gën a aajo wala muy fàttali muy relation yi nga xamante ne moo nekk diggante ndawal jullit bi ak téere bii di alquran alkarim waaye dul def dul ubbee waxtaan bi lenn ci min al ayaati wa dikr alxakim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قفورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءوا فقال له فرعون إن فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي الكل وكبره تكبيرا mbokk yi loolu lenn la ci kàddu yi borom asamaan ak suuf ñoo ko bëggoon ubbee ndaxte dina am ay laaj yu ñëw ci biir waxtaan wi yu aju ci tomb bi mooy bi ñu ne tekk tekkaaral di déglu waxu borom asamaan ak suuf. kon ak cant yi ñeel na yàlla ju lool te sell lool te barke lool ñu koy sant moom yàlla di ko kañ di ko bàkk ci lépp loo xamante ne yelloo na ko di seede na amul kenn ku war a jaamu ci dëgg jaamu ba di ñu jural njëriñ te du yokku lenn ci ñu war a jaamu ci ñàkk jaamu nga day jural lor te du ko wàññi lenn moom mu ñu war a jaamu ci kudul allah di seede ne moo yónni ndaw li jubla muhammad ibni abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi mbokki jullit yi mbokki doomi ndey yi mbokki ndaw yi fa inna nicma allahi azza wa jalla ala hadihi al umma أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعما عظيمة متنوعة متعددة توليا لك الخير ينجي صلى الله عليه وسلم دفتي خولي مجد يموت يلم waaye bokk na ci ci gën a rëy gën cee màgg moo di inzaalu kitaabil hakiim إنزال هذا القرآن العظيم واتي على واتي شنو تربيد القرآن الكريم تربيد خمنتني دستور الأمة وأساس نهضتها mooy doctrine xeet wi mooy liy tax ñu jëm ci kanam ci téere boo dee axrajaha allahu min azulumaati ila annuur ci la yàlla génnee xeet ni ci ay lëndëm jëme leen ci li nga xamante ne moom mooy leer kitaabun anzalnaahu ilayka lituxrija annaasa min azulumaati ila annuur téere la boo xamante ne dañ koo wàccee ngir nga génnee nit ñi ci ay lëndëm lëndëm jëme ci leer jële leen ci lëndëmu kéeféer jële leen ci leeru islam jële leen ci lëndëmu bokkaale yóbbu ci leer bu wéetal yàlla jële ci lëndëmu mooy yàlla jële ci leeru topp yàlla jële ci lëndëmu bidaa yóbbu leen ci leeru wommatu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla nanu yàlla musal ci lëndam yooyee te defalal nu leer bii ba bi ñuy daje moom kon téere bii daal alquran karim bokki jullit yi sunu relation ak moom loolee mënoo kaa waxtaane lu dul ne di nga am tomb boo jagleel alquran am tomb boo jagleel ndaw ñi am tomb boo jagleel relation bi nga xamante ne moom moo nekk seen diggante te soo bëggee jàngale ba relation nekk diggante ndawi tey yi ak téere bii di alquran al karim loolee mënoo ko jëlee fenn mënoo fudul génération bi yonent bi yawoon ridwanullahi taala anhum ajmain naka la ñu jàppee woon alquran ban relation moo nekkoon seen diggante ak alquran ndaxte loolu la imam malik doon wax ne wala yuslihu axira hadihi al umma illa bima saluha biha awaluha amul lu mën a defar dernière génération yi lu dul li defar woon génération bi doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon suñu indee leen na ci relation bi saxaaba yi amoon ak alquranil karim loolu doy na sëkk ngir wàññi ndawi tey yi naka lañu war a jàppee ci alquranil karim sikk sàkk amul ne ñu ngi dund ci jamono joo xamante ne fitna yi bari nañu lool jafe-jafe yi yaatu lool bunti subuhaat yi ak shahawaat yi ubbeeku lool ci kanamu kan ci kanamu ndaw li di bëreeg moom ngir génnee ko ci leeru alquran al karim tàbbal ko ci li nga xamante ne moom mooy lëndmaayu ak réer sikki sàkk amul ne ndaw lu nekk yuridul xalaas bëgg naa mucc waaye nag ngir mu mën a mucc fokk mu xam asbaabu najaati wal isma sabab yi tax mu mucc sabab sabab yi tax mu raw te sabab yooyee génnul téere yàlla bi subhanahu wa taala ala wa huwa kitaabu llahi alladi man tamassaka bihi falan yadilla abada mooy téere bii nga xamante ni ku ci mooy doo sànk ba faw taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kon ñun ndawi tey أحوج ما نكون لتعلم كيف نتعامل مع القرآن الكريم tey la ñu gën a aajoo jàngat naka la ñuy jëflanteeg alquraanul karim te loolee man ta am wa laysa min sabilin ila hadihi almaarifa illa bi qiraati ahwali shababi sahaba alladina aashu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama وتعلموا منه فكيف تعامل هؤلاء الصحابة الشباب مع أعز وأكرم وأفضل الكتاب loolu mën nañu koo am loolu dañoo jàngal dund saxaaba yi nga xamante ni ñoo dundoo noonu ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mu jàngal leen ci foofee la ñuy xamee naka lañ doon jëflante ak alquran al karim ci téere di gën a tedd gën a màgg te moo di alquran al karim suñu borom yàlla subhanahu wa taala liy wane taxawaayu alquran al karim bi mu nammee wàcce téere bii alquran da koo tànnal xeet wi gën ci xeet yi da koo tànnal weer wi gën ci weer yi tànnal ko li nga xamante ne mooy yonent bi gën ci yonent yi tànnal ko malaaka bi gën ci malaaka yi tànnal ko guddi gi gën ci guddi yi ngir mu indil ko xeet wi gën ci xeet malaaka ba mooy jibril weeru mooy weeru koor guddi ga mooy guddik laylatul qadri yonent ba mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallama xeet wi mooy xeetu lislaam mbokk jullit mbokki doomi lay بشر الله عز وجل بإنزال هذا الكتاب الحكيم moom yàlla ñuy bégal ci wàccee gi mu wàccee ci ñun téere bii di alquran alkarim يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ee yéen nit ñi qad jaa'atkum dikki na leen maw'izatun ak waaru waaye bawoo ci yàlla waaye di téere boo xamante ne wa shifaa'un lima fi sudur day saafara li ci biir xol waxu dal nekk njub wa rahma nekk yërmande lil muminina ñeel way gëm te di alquran alkarim ak njubam lu bàyyi mën a kontaan ci li la yàlla defal fii ci aduna muy alal muy njaboot muy jàmm yëgal ne di gën a rëy gën a jara kontaan mooy wàccee jëm wàccee ci alquran alkarim def la nekk jullit قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون kon nga jël ginu yàlla defal daf ni ñu nekk ay jullit wàccee ci ñun alquranul karim mu ne loolee moo jar a kontaan moo jar a bëgg mu ne loolu xayru mimma yajmaun moo gën ak lu ngeen marran lu ngeen mën a dajale ba moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala bégal nit ñi ñëpp xamal leen ne téere gi yërmande la téere gi wér la وننزل من القرآن ما هو شفاء jàngale nañu ci alquran bi maa la nga xamante ne euh, njub la waaye te di nekk rahma ñeel way gëm yi yàlla nañu yàlla defal rahma boobu ak li nga xamante ne moom mooy njub lool mbokki jullit yi mbokki doomi lay buntu bii di waxtaane euh, sunu ralaanoo alquran al karim bunt bu màggal rawatina nag bi mu ajoo ci ndaw ñi dikk amul na ak ndaw ci lislaam dafa am ay maanaam ay mbir yoo xamante ne mooy ràññeeku ci moom wëlis keneen ku dul moom bi ci njëkk moo di ak ndaw hiya fatratu shabab wala fatratu shababi hiya almarhala allati yatamattau fiha al insan بكامل قواه الجسدية فهو قد تعدى مرحلة الصعود الطفولة ولم يبدأ مرحلة الانحدار الشيخوخة ndaxte ndaw moo toll ci diggante bi nga xamante ne paase na nekk tuut tuut tànk bu ndaw maanaam paase na lu tolloog fukki at ak juróom jëm ci kaw te yeggagul fi nga xamante ne mooy ak màgg kon mbooleem li yàlla dëxal ci moom ci man-man ci ay xalaat ci kàttan foofee lañ ko soxlaa dëgg bi tamit moo di anna shabaab hum rijaalul ghad ndawi tey yi ñooy magi ëllëg ñooy bàyyi ëllëg yi ci ñoom la yar société yi nar ñëw yi ci loos la gàllu ñoom ñooy jiite waat adduna bi kon taqewaat leen ci alquranil karim day bokk ci euh, mbir yi ëpp solo ñetteel bi fi salaaxi shababi salaaxu lil umma ndaw ñi suñu baaxee rek xeet yu baax waaye ndaw yi tey suñu yàqoo société bi yàqu li annahum hum alquwa almutaharrika fi almujtama ndaxte ñoom ñooy euh, énergie ñoom ñooy Euh, doole yi ñooy moteur bi nga xamante ni ñooy doxal ab société li tax ñu war ci gën a waxtaane tamit moo di ab ndaw moom dafa nekk koo xamante ne lam yegtamil nubtuhu baax maanaam mooy ñoragul ñàkk ñor mu ñàkk ñàkk ñor moo tax ak da koy yomb lool lu mu gis yaakaar ne loolee la roy da koy yomb ba moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama joxoon ndaw ñi eh, maanaa yitte sunu borom yàlla subhanahu wa taala tudd na ci alquran alkarim lépp loo xamante ne mën na jural doomi aadama yi jub bokk na ci loolu zikruhu li qisasi al awalin li naaxuda minha al ibra tuddal nu xew-xew ñi fi jaaroon ba def ngir ñun ndawi tey ñu jël ci ñooñu ay leçon jël ci ñoom ay jàngal لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أو في قصصهم يا أهل القرآن في قصصهم أو في قصصهم في قصصهم جزاك الله خيرا سورة يوسف naka noonu tamit yàlla digal ñu ñu roy leen ci yoon wi ñu nekkoon أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ñooñu ñooñu ñi yàlla jubal kon roy leen ci jub li nga xamante ne ñoom la mu leen ko wax ba tey ci suratul mumtahana قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه am ngeen ay royuwaay yu rafet ci Ibrahim ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko toppoon ci jub sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu wax ba tey ci suratul ahqaaf فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل muñal comme ni borom dog yi muñee woon di ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kii di ibne abbasin radiallahu taala anhu mu ne ma baata allahu nabiyan illa shaaba illa shaaba yàlla mas ta yónni ab yonent lu dul ne ndaw la ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب amul kenn ku yàlla wërsëgal xam-xam lu dul ne ba mu koy wërsëg wërsëgal ak ndaw la kon mbokk yi xisas yooyu bëri na lool liñ ci mën a jàngee tamit bëri na lool te damit xisa sunu maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam borom bi subhanahu wa taala dañuy nettali mbokkam ya lañ doon wax ci moom qaalu samicna fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahim bi ñëwee gis seen xërëm yi am ay jafe-jafe yii ñu dammat leen yii ñu daaneel leen ñu ne ah déggoon nañu de fatan ak ndaw boo xamante ne daan na wax ci xërëm yi wax yu ñaaw ibnu kathir bi muy firi fatan li ko firee mu ne shaaban déggoon nañu ab jeune ci dëkk bi koo xamante ne daan na ñaññi jaamu euh, xërëb bi naka noonu bi leen ci xista yonent yàlla yusuf alayhi salaatu wasalaam nekk ay njàngale yu bëri lool yoo xamante ne ndaw yi mën nañ ko jël ci moom def ko royuwaay ci wàllu fegu def ko royuwaay ci laab def ko royuwaay ci wàllu bañ a tàbbi ci bakkaar def ko roy waaye tamit fi isaari mardatillah tànn ngërmaande borom bi subhanahu wa taala wa inna lahu ma naalahu fi dunya min taalib wa ana ak lu ko ci mën a dal nag fii ci aduna ci ay jafe-jafe ak li nga xamante ne moom mooy ay diis naka noonu tamit suñu borom yàlla subhanahu wa taala tuddal ñu xew-xew aw ay ndaw yi romboon lu mel ni ahlul kahf إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ñoom de aw ndaw lañu ay ndaw lañu ñoo xamante ne amanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom waaye dolli ci yàlla mu ne wa zidnaahum huda ma dolli leen jub ñoo ngi ay royukaay lañu ci ñun bokk na ci al i'tizaaz bi diin maanaam ngay daboo sa diine ah te diine gën a rëy ci li nga am wa daawatu ilayhi woo ci jëme ci sa diine wal istiaanatu billah dañ leen di roy tamit ci ni ñu dimbali ko woon yàlla ak di ko ñaan wa i'tizaalu ahli al-baatil inda al-'ajzi an islaahihim ak beru sori yi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy yàq ginnaaw bi nit ki demee ba lottu ci mën leen a defar ibnu kathir bi muy firi qissa bi ne ذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب yàlla ne na ñooñu ay ndaw lañu moo it lu kafir mooy wax ba tey mu ne wahum aqbalu lil haqq ñoo gën a mën a nangu dëgg wa ahda lis sabili min ash-shuyukh alladi qad ataw ñoo gën a mën a nangu dëgg ñoo gën a mën a tënku ci ndigal ak mag ñi nga xamante ne daanaka seeni ak sori na lool mu ne wal xamatu fii fii diinil baatil ak ñi nga xamante ne dañoo dem ba nekk mag xuus yàgg ci diine yi nga xamante ne dañ ko jàppee diine su fekk ne réew la mu ne wali haada ibnu kathir mu ne ba lii moo tax kaana aktaru lmustajibina lillahi taala wa li rasulihi ñi ëpp ñi wuyu woon yàlla akub yonent bi ci woote ba ci tàmbali ga moom ibnu kathir mu ne ñooñu shababan ay jeunes lañu وأما الشيوخ min Quraysh فعامتهم بقوا على diini mu ne mag ña nekkoon ca Quraysh ñu ëpp ci ñoom daanaka ca la ñu nekkoon ca la ñu mujj de yàlla na yàlla musal ci dee ci képp dana ciy jàngee tamit ne lii firndeel waxu Ibnu Kathir bi ne ñi ëpp ñu wuytu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ndaw lanu mooy taaliq bi di ñëw mu ne xamalatul islam al awali kaanu shababa ndaw yi yéen woon islam démb ñoom ñëpp ay ndaw la ñu tàmbalee ko ci abubakar siddiq bi muy dugg ci lislaam atam rombul woon fanweeri at ak juróom-ñaar te xam ngeen ne mbooloo nii am na fi ñu am lan fanweeri at ak juróom-ñaar naka noonu tamit Umar ibn Xattaab lam yatajawaz as-sabi'a wa as-salatin trente-sept ans la am bi muy dugg ci l'islam waaw maanaam waaw euh, vingt-sept ans as-sabi'a wal ishrin kii di Usman ibn Affan mu ngi amoon ar-rabi' wa as-salatin li nga xamante ne mooy fanweeri at ak la ñeent kii di Ali ibn Abi Talib rombul woon maanaam fukki at la amoon naka noonu tamit baqi baqiyatul ashar al mubashirina bil janna ku mel ne Talha ibn Ubaydillah euh, ay atam rombul woon quatorze ans kii di Zubayr bun al Awwam mu ngi nekkoon ci as-sadisata ashar muy euh, seize ans Saad ibn Abi Waqqas bi muy dugg ci l'islam ay atam rombul woon as-sabiata ashar maanaam dix-sept ans kii di Saïd bun Zayd lam yatajaawaz al-xaamisata ashar moom it 15 ans romb ko woon kii di Abu Ubayda ay atam tamit mu ngi nekkoon sabaan wa ishrin maanaam 27 ans lii su fekkee ne ñii ñooy ashara al mubashirina bil janna te ñoom ñii ñëpp ca waxtu woowu bi ñu dugg ci lislaam seeni ak kenn ci ñoom rombul maanaam rombul ñeent fukki at loolu doy na firnde te xam ngeen ashara al mubashirin bil janna ñoom ñoo gën ci nag ñoo gën ci saxaaba yi kon ñoom ñëpp suñu nekkee ay jeunes loolu doy sëkk ngir won ñu rôle bi nga xamante ne moom la euh, moom mooy xaar jeune bi ci l'islam kii di Abdurahman ibn Awf naka noonu tamit rombul woon 30 ans wa jamaatun kathira min ashaabi nabii sallallahu alayhi wa sallam kaanu shabaaba qaama alayhim ad-diin wa hamaluuhu ala aktaafihim hatta a'azzahum allahu wa nasarahum ay ndaw lañu woon yenu diine ji téye ko yeggale ko fi mu war a yegg moo tax yàlla teral leen yàlla màggal leen eh, yàlla na yàlla gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy ab saxaaba ridwanullahi taala anhum ajmain mu indi ci suwar min xaali shabab fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay ndaw ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk jullit yi dañu xam ne inna salaf al umma aqbalu ala hada al quran wa inna waqfata maa ba'di ahwalihim yatabayyanu biha ma kanu alayhi رحمهم الله تعالى من حسن التعامل وشدة التعلق مع هذا القرآن وليس عجبا سنين يتلي saxaaba yi ridwanullahi taala anhum ajmain ni ñu taxoo woon alquran ak ni ñu ko bëggee woon ak lim leen jaraloon eh, loolu ci lay xamee dëgg-dëgg ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon ban qualité la ñu woon soo demee ci saxiixul buxaari ak muslim ci xadiisu abi hurayrata radiallahu taala anhu mu ne bi yàlla wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aaya bi lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxaasibukum bihi llah fayaghfiru liman yashaa من يشاء borom bi subhanahu wa taala mu ne ñeel na yàlla mboolem li nekk ci asamaan yi ak suuf si su ngeen feeñalee li nekk ci seen xol yi wala ngeen nëbb ko yàlla subhanahu wa taala dina leen ci xisaab su ko defee jéggal ku ko soob waaye tamit bugal ku ko soob ci ñooñi lii wane ne saxaaba yi ñoom dañ daan doxal alquran di ko dund ci la ñu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw rek góor ñoom ñëpp euh, ñu toog ci suuf ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullibna min al amali ma nutiq ñun de jox nañ ñu ci li ñu war a def ay ndigal yoo xamante ni attan nañ ko lu mel ne julli ak woor ak jihaad ak saraxe waaye nag wa qad nazalat alayka ayatun la nusiquha yàlla wàccee na cooy cëpp aaya boo xamante ne biñ ko settantalee daal la ñu gis mooy gis nañ ne euh, maanaam duñ ko attan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xool naka la doon yaree saxaaba yi ci euh, alquran alkarim da leen ne aturiduuna an taqulu kama qaala ahlu euh, ahlulkitaabayni min qablikum sami'na wa asayna qulu sami'na wa ata'na ndax da ngeen di wax comme li waroon di téere ya waxoon ne dégg nañu te duñu def waaye déedéet leen dégg nañu te du te dañuy topp ñoom saxaaba ñu nangu loolu waaye yàlla subhanahu wa taala ab diir mu wàccee ab aaya euh, maanaam nasax la nga xamante ne moom la tuddoon ci aaya bu jiitu bi muy wax gi mu wax ne maa yafalu llahu bi aadabikum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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها kon bi ñu nangulee yàlla nangul yonent bi yàlla bi nangu ne sami'na wa ata'na yàlla subhanahu wa ta'ala jéggal leen ne leen laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha teguma genn bakkan lu dul li nga xamante ne moom la lan moom la attan mbokk yi sooy jàngat qissa gi dana ciy gis ne saxaaba yi lam yakunu yataqabbaluuna alquran wa yatalaqawnahu ala ayi cheyin yutla wa yustanbatu minhu alaxkam fa yucrafu ma fihi min almacaani faqat bal qara'uuhu radia allahu anhu annahum hum almuxaatabuuna hum almaaniyun dañ ciy gis ne saxaaba yi kon fu aaya wàccee ci saati dañuy yëg ne ne ñoom la ñuy waxal kon yow dawla jullit bi aaya boo dégg ñu firil la ko yëgal ne aaya boobu yow lay waxal su ko defee nga xool ni nga xamante ne noonu nga ciy taxawee naka noonu di suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla te seen ngëm ga raxuñu ko tooñ mu ne ñii de ñoom ñooy am jàmm fii te ëllëg ñoom ñoo am njub te ñoom ñoo am tëj saxaaba yi dañoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah wàcce nañ ci yow aaya boo xamante ni de jaaxal nañu moo di yàlla ne ku gëm yàlla te gëm nga raxu ak tooñ wa ayuna laa yuzlim eh, nafsa ah ana kan fi ñun moomul tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee leen nekkul ni ngeen ko déggee de xanaa jàngu leen woon jaamu yàlla bee dee bële bi kat ah luqmaan bu muy waar doomam nee ko yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim kon zulmu ko googee nekk foofu mooy zulmul abdi eh, li rabbi te moo di ashirk kon li nañ ciy jàngee rek saxaaba yi kayfa kaanu yatafaaluuna maa alquran alkarim naka noonu tamit dañ ko daan seetantal yow ndawi jullit bi nga xam ne alquran bu téere bu ñuy jàng noonu rek jël waaye téere la boo xamante ne dañ koo war a seetantal imam muslim mu ngi nettali hadisu abi xudayfa euh, mu ni lyaman radi allahu taala anhu wa ardah mu ni julli naak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn ci guddi yi mu jàng baqara teg ci Ali Imran teg ci suuratu Nisaa ci benn raka fii raka mu ne nga seetlantal xool façon njàngin googu gën façon njàng la waaw Xudayfa mu ne moom ci boppam mooy nettali mu ne ida marra bi ayatin fiha tasbixun sabbax aw sual saala aw taawudun taawad su rombee aaya boo xamante ne ak sabbal la te nekk mu bàkk ci yàlla su rombee aaya boo xamante ni lu ñu war a ñaan di nekk mu ñaan ko yàlla su rombee aaya boo xamante ni eh, lu ñu war a lànk daw ci yàlla ngir musal bi ci la su ko defee mu ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala eh, musal ko ci moo tax Xuzayfa lu muy nettali xadis bi ci yenn riwaayaat yi mu ne bi mu duggee ni saa ba pare nag ci laa xalaatee la lu bon gay nag waaw lan lu bon nga xalaat nga xanaa mooy dagg sama julli ndaxte moom it bi muy dugg ci julli bi dafa seenu yoon bi ci jàkk li muy julli rek mu ñëw la ñëw ànd ak moom waaye mbir ma euh, demee nii naka noonu tamit euh, kii di ibnu omar radiallahu taala anhu wa ardah jalasa fi taallumi surati albaqara samaniya sinin wa qiila jalasa santay ashrata sana fi taallumi surati albaqara moo tax kii di abu abdurahman silmi mu ne kaana alladina yaqra'uuna alquran من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وأبي وأبي بن كعب وغيرهم ممن كانوا يقرؤون التابعين moom mii di ibnu Umar radiyallahu taala anhu wa arda suratul baqara jàngat na ko lu tolloo uh, juróom-ñetti at am ñu ne fukki at ak ñaar foofu amaana kuy xalaat ne waaw ngir mu mokkal baqara rek jël na ci moom juróom-ñetti at mën a la déedéet ndaxte ñoom dafa am nañ daan jàngee démb wuute ñun ni ñuy jàngee nan lañ doon jàngee démb mooy li ibnu euh, mas'ud doon wax ni kunna fi ahdi nabiyi sallallahu alayhi wa sallama ah wala kii di euh, kunna fi ahdi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam la natajaawaz al ashra al ayat ashra ayat hatta na'rifa ma fiha min al qur'ani wal ilmi wal amal fata'allamna alqur'ana wal ilmu wal amal jami'an mu ne ñun ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daanuñu romb fukki aaya luñ la dañuy ne tekk xam lu ci nekk ci xam-xam la ca nekk ci jëfe mu ne moo tax ñun ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama niñ daan jàngee alquran dañ doon jàng alquran bi di jàngaale xam-xam bi ci nekk di jàngaale jëfe bi yépp voilà loolu la Ibnu Mas'ud di wax ci euh, beneen asar mu ne kaana rajul minna ida taallama ashra ayatin lam yatajawazhunna hatta ya'rifa maanihinna wal amal bihin kenn ci ñun ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daanañu romb fukki aaya lu na dañuy ne tekk jéem a xam la ca nekk jàngat ko maanaa euh, maanaa jëfe ko kon suñu la ne Ibnu Umar def na ci fukki at ak ñaar loolee lañ ci lan lañ ci lañ ci jub naka noonu tamit eh, jële nañ ci Maalik mu ne waaw mooy riwaaya bi ñëw ci eh, fukki at yeeg lan ñaari mu imam Maalik mooy leeral mu ne anna ibnu Umar radiyallahu anhu ta'allama al-baqara fi fi ithnatay ashrata sana falamma khatamaha nahara juzuran radiyallahu anhu وطول هذه المدة ليست فقط لحفظ ذلك وضبطه من جهة اللفظ بل إن المظنون نعم تطبيقه واستخراج أحكامه وما إلى ذلك من أن يقول موكل فريقواي موي جانغات كو فرنج فانتي كو سينا مو غنا لام سينا مو غنا ياتو أيها الإخوة الكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم يقيم الليل بآية واحدة وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر saxaaba yi bokkul na ci li ñuy jàngee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy settantal alquran ak di ko dund loolu tamit ñu nit dañ leen koy lan kon tomb bu ñu tudd ci saxaaba ya rek lañ koy jëlee ci ginnaaw mooy ñu nit dañ leen koy war a lan dañ leen koy war a roy mu ne bëri woon na guddil ñuy bantu ab aaya ndax am solo bi mu am solo abi darin mu ngi nettali mu ne qaama annabiyu sal allahu alayhi wa sallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbax yon salaa sallam julli na guddi di bantu benn aaya ba xëy mooy aaya bi in tu'adibhum fa innahum ibaduk وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم gaayaa ne moom say jaam lañu soo leen bugalee say jaam lañu soo leen jéggalee yow yaay al azizul hakim muy kaat bi nga xamante ne moom la Isa alayhi salaatu wa salaam di tëjee discours am boobee bi yowmul qiyaama su ko yàlla woowee ne ko a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummi ilaahay min duunillah mu weddi li nga xamante ne moom la ko gaa yi sosaloon loolu tamit solo nañ ko ci saxaaba yi ku mel ne tamit daari radiallahu taala anhu wa ardaa moom it fanaanoona di baatu aaya bi أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين وعملوا الصالحات ndax waaye ñii def bakkaay yéefar yi dañoo yaakaar ne man yàlla subhanahu wa taala dama leen di tollale ñi gëm yàlla di jëf jëf yu baax loolee du nekk yàlla mu ne duñu mën a yem moo xam bi ñuy dund fii ci àdduna la wala bi ñu bi ñu nekkee fële ca àllaaxira naka noonu tamit asma radiallahu taala anha jàng na aaya bi jàng na ba yegg ci aaya bi فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم mooy bi waa aljanna di wax ne kat ci yàlla baatee nañu musal ni ci li nga xamante ne moom mooy mbugalu safar mu ne fa waqafat radiyallahu anha fa ja'alat tu'iiduha wa tad'u maanaam taxaw di ñaan di baaxtu aaya boobu eh, ki nga xamante ne mooy raawi asar bi mu ne fa taala alayya dalik bi mbir ma demee ba yàgg ci man lool dahabtu ila suuqi fa qadaytu xaajati summa rajactu wa hiya tuciiduha wa tadcu radiallahu anha ma dem ci marché ba dox ko samay soxla yu bëri ñëwaat fekkaat ko fa ma ko tolloon ci aaya ba mu koy baamtu ak di jooy ak di ñaan yàlla ak di jégg naka noonu tamit jëlee nañ ko ci ku mel ne ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu fanaanoo na di baamtu aaya bi wa qul rabbi zidni ilma kii di saïd ibnu jubayr rahimahullahu taala moo nit fanaanoo na di baamtu aaya bi واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا وهم لا لا يظلمون بارك الله فيكم kon mbokk yi loolu lenn la ci ay namage yi yoo xamante ne kenn na ku nekk ci ñun mënul koo natt natt ci sa bopp ndax di la tuddal jaar-jaar ñu romb ña du lenn lu dul bëgg nga nii ci seenu jaaruwaay yal na yàlla wërsëgal mboolem li nekkoon ci saxaaba yi yàlla delloowaat ko ci ñun lu ko yomb la moom yàlla kii di Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu wa arda bokkoon na ci xër mu xëyoon ci alquran dafa daan jël kaamil bi genn wàll mu fanaanoo ko julli guddi geneen genn wàll mu yendoo ko jàng bëccëg boole ak koor julli genn wàllu kaamil bi taxaw euh, raawi bi ñu koy nekk mu ne léeg moom lay defee witre day julli gee rek def ñaari rakka jël benn rakka bala moo sëlmal lañ ne fajar jot na yéen doo jàng genn wàllu Qur'an bi ba ay mbokkam dem ba yërëm moo tax soxna Ousmane ibn Affan mu ne Ousmane bi mu faatoo kaamilam keneen mënu koo jëfandikoo ndax ni mu ràppee ñun ñaata kaamil moo ràpp ci suñuy loxo ñaata kaamil moo la moo ràpp ci waaye kaamil yaa ngi ci biir na teg ci oto yaag ci kaw kanaaf ya mu ngi bees sax ñu amoon deux mille ba tey daanaka lenn dal ko la ko waral mooy lan mooy loxo yi duñ ko foyite lu bëri léegi Ousmane ay mbokkam yërëm garaat yi la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow Ousmane daf doon nombal su bopp tuuti Ousmane xamal leen ne kat jàng bii may jàng aw ma ci coono bal bànneex laa ciy am mu ne leen wallahi law tahurat qulubuna ma tabiat min kalaamillah sunu xol yi su laaboon ni mu war a laabee du doyal mukk ci téere yàlla bi subhanahu wa taala mu tekki ne leen wallahi inni la astaxi an tamurra alayya laylun aw nahaarun la anzur ila kitabillah man Ousmane am naa kersa guddi ak bëccëg di romb ci sama dund te ubbiwuma téere yàlla bi ko maanaam tiim ci jàmm kon ndekete nga mën a mu daaw mag alquran day laaj maanaam ak tuxru ci sa xol tuxru mooy xol di fexe ba raxasu ci bépp bàkkaar raxasu ci bépp tilim tilim bu bàkkaar loolee moo koy may mu mën a bànneexu